jaale d' abord euh, ñi nga xam ne ñoom la seen i doom faatu ci gaal gi yàlla leen leen ñi nga xam ne faatu nañ ñaanal leen yàlla xareen àjjana lii nag loo xam ne la euh, jàngat bi dafay xaw a métti parce que bu fekkee ne ñoom dem nañu euh, te amuñu secours bi nga xam ne moom la ñu laaj dafay mel ni négligence la quelque part Euh, négligence ci autorité yi euh, dafa mel ni ñoom euh, li nga xam ne mooy dund doomi aadama yi nga xam ne ñu ngi tenté dem barsax wala barsa dafa mel nii ni defuñ ko muy problème donc loolu lu ñu war a naqaru la te dafa nekk suite logique ci li nga xam ne mooy politique boo xam ne moo lu ñu mën Sénégal politique boo xam ne peut-être li nga xam ne moo soxal askan wi li nga xam ne moo soxal ndaw yi nekkul priorité essentielle donc euh, loolu lañ ci mën a jàngat euh, xam ne aussi fa ñu jëm fa ñu bëggoon dem ñooñu aussi faale wuñu leen parce qu'en vérité ñoo ñu euh, bu ñu sañoon kenn du fa ñëw bu ñu sañoon ñu fermer frontière yëpp d'ailleurs ñu ngi def effort yu ñu mën pour que ñu fa agsi donc ñooñu bu ñu leen gisee ci géej ci àll ci biir géej gi sax duñ leen secourir wala dañ leen di Euh, en tout cas négligé donc loolu muy bu fekkee côté ñële la moom négligence moom côté ñun la moom négligence moom double négligence boo xam ne wax dëgg yàlla loolu loraange rek la indi te loolu dafa war a ubbi xelu nit ñi ubbi seen bët ci li nga xam ne mooy enjeu fi ñu toll nii parce que toll ñu ci euh, jamono joo xam ne euh, Sénégal ak Afrique dañu war a jóg taxaw jóg taxaw parce Euh, dafa mel ni seen ay dafa war a jot mais pour ñu jóg taxaw il faut que population yi am conscientiser ci loolu. malheureusement malheureusement dafa xaw a des. dafa xaw a des te bu fekkoon ne conscient nañ ci li nga xam ne am nañ potentialité bi te am ay njiit yu ko mën yu ko jar yu am kattan bi am xam-xam bi. Mm-hmm. am yéene bi bu boobaa defe naa ne. Euh, lii na fi jóg parce que lu ci bari quand même euh, li koy wund mooy li ko waral mooy ay ay ndaw yoo xam ne dañu bëgg a tekki ñii amuñu ñii xëy na am lu ñu am mais doyaluñu am na ñoo xam ne ñu xalaat euh, ne mu am foofu ay mirage la ay rêve la donc loolu yëpp boo ko boolee mu laaj conscientisation ak ay dispositions yu baax pour ñu toog ci affaire il faut ñu am rek ñoom ñoo am da nga naan euh, fu nekk parce que ki nga xam ne am na ci lu mu jàpp mais malgré tout doyalul ne dafay dem par force kooku ku jara xoolaat la parce que quand même cent 500000 jël am na ku ñu fi wax sànq amoon na liggéeyam amoon na restaurant bon amoon na lu mu teddee mais en fait dafa bëgg lu gën a bari donc loolu mooy euh, jikko yi ay doylu dañ ko war a sàmm ci réew mi euh, dañu war a sàmm ci réew mi gëm sa bopp ne également mën nga fi toog tekki parce que bu fekkee ne mirage boobu nga am bon euh, dafa des li ñuy wax mentalité décolonisée mentalité colonial bi daf fi des ba nga xam ne bon ñun presque ñu bari dañu xeeb suñu bopp xeeb li ñu am yaakaar ne li lu baax rek fële la am donc loolu ay question de conscientisation la ak euh, sensibilisation am na ñoo xam nag wax dëgg yàlla dañoo nekk ci société boo xam ne amuñu dara ci lu ñu jàpp amuñu ci dara lu ñu jàpp te gisuñu ne ëllëg am na lu leen mën a fi téye muy désespérance parce que boo demee bi amatoo xamoo ci amoo ci loo jàpp te amoo yaakaar bu boobaa dee ak dundu benn lay doon pour yow mm-hmm. donc loolu bon kooku moom responsabilité état bi mu ngi ci lu baax a baax parent yi aussi certainement am ci responsabilité parce que bu fekkee ne yaa ngi dund ak benn xale mu ñëw di la laaj xaalis nga di ko jox pour mu dem am nga ci responsabilité bien donc responsabilité dañ ko situer à plusieurs niveaux mais li wóor mooy ñun africains yi ñun sénégalais yi dañoo war a conscientiser wu décoloniser suñu mentalité ba pare gëm suñu bopp jàpp ne mën nañ changé réew mi te buñ ci jàppee ñun ñëpp réew mi nañu